saxaaba yi dañaa gis ne ngeen di mbindeef sallallahu alayhi fu muy tëdd dafa nekk foo xam ne fu wow la ñu ne yaa rasulallah teñ laa uutal fooy tëdd foo xam ne fu nooy la mu ne lan laay doyee aduna aduna bi kat meluma meluma fi nenn nu dul waa joo xam ne dafa romb si benn këru garab mu ñëw nëppale ko si kër gi ba si yàgg mu jog mu continuer yoonam noonu laa mel si